asalaamaaleykum man la Mariama Sonko maa ngi dëkk Gàmbi waaw man daal nii lii laa juddoo la ma yàlla bindee daal waaw léegi nag ci ay ndimbal laa toll nag pour nit ñi dimbala ma yére ma because ni ma dee doxee nii dafa overall miti dafa overall miti ndax su ma dee dox déedéet dañ ma dee mata melantaani lu nekk daf ma dee mata su ma lu pay yëpp mu ngi lot ceeku ndimbal daal laay wóor li ba du am su ma ko mënee am moom laay kon puus puus ak yooyu noonu daal su ma ko mënee am ak wilcia waaw wilcia daal su ma ko mënee am waaw ak business parce que maa ngi dem school ba jeexal waaye nekkuma di def dara te tay ma doon dem school nit ñi dañ ma doon fob di def lu nekk waaye léegi xam ne am naa kersa pour loolu pour nit ñi di ma fob di ma def loolu rek loolu daal am naa ci kersa torop loolu moo tax du ma dee génn du ma dee dem fenn maa ngi toog